Thank <laughs> you. toujours dans votre acte du jour du 25 juin 2024 suñ fa jógee dañuy dem fële DGID direction générale des impôts et domaines les lu soxal le TVA numérique nañ jàpp que daal annoncé l'application lii di application bi dinañ ko à partir du 1er juillet ginnaaw loolu daal lii di direction générale des impôts et domaines di DGID nous ngi informé daal képp que les nga xamante ni taxes taxe yoo xamante sur la valeur ajoutée ñu tuddee ko TVA jëmale ko ci ay prestations de services numériques nous réalisons organiser ko fii Sénégal jëmale ko daal ci ay fournisseurs yoo xamante ne dañ nekk en ligne étrangère ak ay plateformes numériques étrangères lépp loo xamante ni prévoir nañ ko ci ay dispositions dina sukkandiku ci article 350 bis bi suñu sukkandikoo ci code général des impôts des domaines moom daal dina jël effet à compter du 1er juillet muy vertu bi nga xamante ni lépp luy disposition bu légal boo xamante ni dañ ko réglementé ñi daal di koy appliqué ba noppi daal di koy assujettis étrangèrement régulièrement immatriculé ko foofu ci des grandes entreprises xam obligation d'aller di correcté ba noppi au plus tard le 20 du mois suivant chaque trimestre ligne nga xamante ne mooy taxe des xamante ne dañ ko les jëmale ko vente de biens services incorporels une ñuy de jëmale ko ci profit clients locaux yi suñu les entreprises yi nga xamante ak ay entités particuliers si ben cas wu défaut de preuve d'immatriculation régulière entreprise numérique étrangère yi ak locales yi obligation d'aller retenir ba verser versé li nga à ne TVA exigible conformément si article bi nga xamante ne 350 du code bi nga xamante ni ki lii di DGID moom la teg muy fournisseur yoo dañ nekk en ligne étranger ak ay opérateurs de plateforme numérique étrangère ñoom seen bopp mën nañu immatriculer fii ci Sénégal daal di recevoir benn login boo xamante ni ak mot de passe boo xamante ni à distance la suñu sukkandikoo ci voie électronique yi ak benn lien bi nga xamante ni ñu ngi leen koy jox muy ay formalité de déclaration de paiement jëmale ko ci TVA ñu effectuer ko ci plateforme yi nga xamanteni télé déclaration lañ ko tuddee e à partir de l'adresse bi nga xamanteni joxé nañ ko ci liste fournisseurs yi nga xamanteni ñoo nekk en ligne nekk fofu à l'étranger. muy opérateur plateforme numérique étranger assujetti régulièrement immatriculé fi ci Sénégal ginnaw lool dal lepp lo xamanteni def nañ ko objet de publication dañ koy actualiser jëmale ko ci site internet bi nga xamanteni direction générale des impôts et domaines moko mom ginnaw ginnaaw ay entreprises numériques yo xam dañ leen domicilier à l'étranger muy ay entreprise yoo dañu entité locale assujettie de TVA ginaaw loolu dal bép particulier bo xamanteni ñi ngi lay invité nga approprier ay information yo xamanteni ci contenu bi nga xamanteni arrêté d'application bi dañ koy dal di publier le ko ci site bi nga xamanteni mom la direction générale des impôts et domaines mom ak service yi nga xamanteni moy direction des grandes entreprises gestionnaires des dossiers fiscaux ak fournisseurs ou opérateurs yi nga xamanteni dañu intéressé ñu dal di des des disponible jëmale ko dal ci information complémentaire muy li nga xamanteni dal moy TVA de nga xamante dafa jëm ci numérique dal en application à partir du 1er juillet qui ko les directions générales des impôts et domaines <laughs>